président Bassirou Diomaye Faye kon yéen ñi taxaw fii yëpp kan moo leen gën a gëm Serigne Touba kon ñun ay murit lañ ba pare bokk Pastef ñun ay murit lañ bokk Pastef kon président Bassirou Diomaye Faye bi muy ñëw Mbacke yéeneen numéro un mooy siyaare la xalif général de moo tax mu woo ma ma lijjanti ma bu ma ñëwee far yàlla dogal Cheikh Mouhamadou Mountakha fatu moo tax fa. kon waxkat yi bu subaa boole ni bind boole leen ci loolu yéen waa Mbacke est-ce que ngeen pour far président Bassirou Diomaye Faye. leen xamee woon démb ak barki démb mooy suñu vote yi ku nar a foqat suñuy résultat nañ ko jaay suñu bakkan Amadou Ba sàcc na ku ànd ak moom sàcc nga Amadou Ba sàcc na asalaamualeykum waa Mbacke ma bëgg ngeen tàccul seen bopp bu baax a baax a baax a baax a baax a baax tàccuwaat leen seen bopp bu baax a baax a baax a baax ngeen kat da ngeen mobilisation bi fi am mën nañu wax sax bi mobilisation di am ba tey Sénégal fii ci département de Mbacké c'est la première fois ci waxtu gi ñuy mobilise lu toll nii ci ay doomu aadama ci weeru koor. lii histoire daf koy retenir ni ko sëñ Cheikh Thioro waxee waaye dama leen bëgg a laaj benn benn laaj rek ngeen tontu ma ci ku leen defal lu ngeen ko mënut a fay lan ngeen koy wax ku leen lu ngeen ko mënut a lan ngeen koy wax kon nañu wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba li waral kaddu gii nag dinaa ci ñëw léegi ci kanam ngeen xam fan laa sukkandiku pour wax jërëjëf Serigne Touba mbokki Mbàkke lii ñu am fii tey ci waxtu gii xaalis defu ko lan rek ko def mooy gëm-gëm gi ñu am ne projet bii ñu tax ñuy sonn tax ay nit dem ci kasu ñu leen di masawu tax ay nit am ci ay gaañu gaañu di leen di masawu gëm-gëm googu ne projet mooy defar Sénégal te Sénégal dee seen xol moo tax ngeen toog fii ba heure bii. nag seede fii tey bi ma nekkee kaso ga ñi jóge Touba mosuma leen xam mosuma leen gis mosuma leen teg tegante ak ñoom loxo ci département Mbacké bii diggante Mbacké ak Touba ñu ñëw seet si ma ñëwaat foofu seet si ma xam ma nu mu toll loolu nag dama koy jàppee cofeel bu jox sama diggante ak yéen te xëy na mu nekkoon ci yéen te mosu am occasion wan ma ko ma dem ba am jafe-jafe caabi fete ma gannaaw ngeen ñëw di ma fa wettali te li tax ci fànn woowu ma ne jërëjëf Serigne Touba. ñi fa doon ñëw yëpp bu nekkee ne alxuraan mokkal nañ ko nañ ko mokkalee fii Touba Serigne Touba lañ ko koy sante ñi fa doon ñëw di ma naan wa makaru wa makarna makran wa makara makran wa hum la yashkurun ñooñu xam naa lu tax ñu doon wax tey te fii ma taxaw tey xam ngeen lu tax ma doon wax ñu njàng bu ñu njàngee fii mu mokk ñu ñëw di ma ko wax di ma ko ferim fàccal pour ma gën a mën a toog muñ ci kaso gi foog naan tey ku ne teg nga ca bët ne jaxaran kon nañ ñëwaat jërëjëf Serigne Touba balaa may gën a sori nag damay nuyu sang bu tedd bi sëñ Mountakha Bassirou Mbacké di ko ziar bu baax a baax di ko jox wàccuwaayam li ñu namoon a def bu ñu duggee fii mooy dem ziar ko ndokkali ko sakku ci moom ay ñaan ndax taxawaayam Sénégal ci jàmmu Sénégal ak ci jàmmal Sénégal ku ne teg nga ci sa bët bu Sénégal tey ki njëkk a bokk na ci sëñ Mountakha kon yal ko yàlla may wér may ko gudd fan lool te ko santee rek santaale naa kilifa diine yëpp biir Sénégal ndax seen taxawaay ci biir réew mi. te nag bokk na li tax mënuñu koo gis sëñ Cheikh Thioro mu ngi ko doon wax ndax yónnee woon nañ bu pour gis ko waaye nu mu fattu ci weer bu tedd gii lenn rek ko ko yiital mooy nu mu ciy profité pour gën di ñaanal Sénégal ndax mu mën bañ a tabi ci guuta kon noonu la ñuy gërëmee xalif généraux yu Sénégal yëpp di leen ñaanal ñoom ñëpp yàlla may leen gudd fan lool ak wér gu yaram bu dëgër di nuyu tamit xalif généralu Baye Fall yi xam ngeen ne ku ne wax liggéey duñ ko liggéey nga wax Baye Fall yi ndax sëñ sëñ Serigne Touba sëñ moom Cheikh Ibrahima Fall moo ko leeral loolu ñëpp xam nañ ko si yoon wi leen di sant bu baax a baax di leen santaat bu baax a baax a baax jërëjëf Serigne Touba di leen waxaat ne ñu ngi nuyu baax a baax a baax xalifu Mbacké sëñ sëñ Abdoulahi mu sëñ Maamoor Mbakke sëriñ xalifa sëñ Maamoor Jaara Mbakke ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp kilifa diine yooyu yàlla may leen gudd fan may leen wërgu yaram ba taxawaay gu ñu am biir Sénégal yëpp que ñu nekk ay murit ñu nekk ay tijaan ay xaadr ay laayeen ay loomanti lim taxawaay googu ñu gën ko mën di wéyal ndax bokk na ci liy sauver Sénégal bu ñu demee bay waaj a ci guutal dama wax sànq ne ku la defal loo ko mënut a fay dañ koy ne jërëjëf Mbàkke gii ñu nekk am na ay jafe-jafe yoo xamante ne am na yu ci commencé am saafara te mu doon saafara ci ay jafe-jafe yu nekk Sénégal te sëñ Muntaxa Mbàkke ak sëñ Maam Mor Mbàkke ñoo ci am taxawaay googu yal na leen yàlla gudd may may gudd fan ak wér-gu-yaram ma bëgg ci cité rek université bi nekk mu bokk ci université boo xamante ne tey buñ fi dee jàngal luñ fiy jàngal te mu am ñu doon jàng fii arab mënu joo dem beneen université bu ñu génnul bitim réew loolu ci mu ngi koy faj fii ci tuubaa te seen vision bu sori moo ko waral lu boole ci nag di fi jàngale mbéy moo xamante ne département Mbacké mii luñ fiy béy gerte bu mbéyum gerte tumurankee rek loolu mën na nekk saafara goo xamante ne ñun bu ñu ñëwee ba def ci mbéy mi liñ ci war a def war nañu mën a weeru ci li ñuy jàngalee foofu ci université boobu pour suqali réew mi moo tax béykat yi nga xamante ne ñu ngi jënd am ay seen ji di am jafe-jafe jaay ko ndax ndax euh, seen gerte am jafe-jafe jaay ko ndax gerte gi baaxul dinañ leen wax na bu ñu ñëwee seen semence dina gën a baax engrais na leen gën a yomb ndax mënuñoo am ay phosphate bu ñuy defaree engrais UCS bii di ko defar ñu amaat yeneen phosphate ci ndendoor yi ba pare am problème mu engrais pour béykat yi Sénégal ñuy jëlee saako engrais lu mat vingt mille vingt cinq mille dem trente mille. loolu bu ñu ñëwee incha allahu rabi dina jeex. Touba fii. dégg naa benn waay ñëw fii keroog. nekk douze ans nekk fi premier ministre nekkaat fi ministère de l' et des finances naan su ma ñëwee dinaa régler problème ndox bu xamoon. Touba mi ñore xam na ne jox na wax nañu que ne foo nekkoon ba defoo ko boobu ba léegi. ku toog 12 ans deful bu la jox ma 5 ans dinaa ko def ndax dañ ko kon bu ñu toogee fii yaakaar na mën nañu leen a nax xam ngeen ne yéen yéen a leen di nax dañu leen a leen ëpp xel fuuf gën leen a sérieux fuuf gën leen a xam ne jamono di doxal fii la toog ne su ma ñëwee. problème assainissement Touba dinaa ko réglé 12 ans yi fi nekkee lu tax réglé wu ko kon bu ngeen bëggee loolu dañ dénk leen ñu xool ñun ñoo leen wax ne ñun ñooy réglé problème assainissement Touba ñun ñooy réglé problème ndox Touba ndax ñoom ñu toog ak ab ab bu ñu toog ñaari mandat réglé wuñ ko du ci beneen mandat bi di ñëw ñoo koy réglé kon nañu puus ne jox ñeneen ñi ñëw muy ñun ñii ñu won leen ne mën nañ ko def ci lu gaaw a gaaw a gaaw ndax affaire bi nag affaire gëm affaire sérieux lay laaj ak volonté politique boo xamante ne man ak ñi ma àndal am nañ ko ba mu mat sëkk. waa Mbacke amuñu amuñu seen fay kon tekkul leen seen bopp bu baax a baax a baax seen mobilisation bi ça restera dans l'histoire de ce pays là te taarixu adduna taarixu Sénégal dina ko bind dootu ko fàtte. kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di leen sant bu baax a baax a baax ci seen taxawaay di leen jaajëfal bu baax a baax a baax. dara te mënoo ko fay dañ koy wax jërëjëf am na ci yéen ñoo xam ne gis nañu sama photo bi ma demee maa yomba ma dem ci teen bi sëñ Touba doon defee den jàppee di ko naane ma tànk jiti si naan dafa am li ma bindoon ci kay ci fay ci publication bi ma defoon Facebook 2018 la woon boobu xalaatuma ne dinaa dugg kaso ma ne ñi ko andi woon fii de xamoon nañ ne ci weetaay lañ koy andi jàppoon nañu ko ne dañu koy toroxal moo tax ñu andi ko fii mais ndekete yàlla foofu lay jaare yëkkati ko ba abadan daayiman ma toog 2018 jàll 2019 jàll 2020 jàll 2021 jàll 2022 jàll ba 2023 bat ma dem kaso fàttali ko ne loolu jàngat la war a doon ci man te loolu bokk na ci li ma jàngee sëñ Touba ba muñee ko sama kaso